asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci benn waxtaan wu gàtt rek jëm ci diine ci ñu bokk ak réew mi ñu bokk ak valeur yi ñu bokk tey nag ñu bëggoon a waxtaan ak yéen ci taxawaay bi nga xam ni moom la jullit bi war a am ci diineem ci jamono joo xam ne ji nag jamono ju lëndëm la ju jafe la ju bari ay pakk nga xam ni taxaw jonn war na ngir mën a wallu diine joo xam ne ji daanaka dafay jànkonteeg ay jafe-jafe bëccëg bu ne waaye nag wala fi nee ñu bay ci say om su fekkee ne dangay taxaw ngir wallu diine ji dangay ngay fexe ba xam fan la problème yi nekk dëgg-dëggi problème nga fexe ba xam noo koy xeexe waaye fexe ba xam lu jar a xeex nga jël sa jot sa kàttan say wërsëg lépp loo am ci moyen nga def ko ca su ko defee la ngay xeex dana mën a saafaraw waaye nag xam nga loolu tubaab di wax se battre contre des moulins à ñi jàng nasaraan te sori ci tuuti xam nañu li may wax benn waay la woon bu ñuy wax Don Quichotte nga xam ni dafa ne woon day dem ci benn jaw la maanaam day wër àddina lépp lu fi xajam lépp lu fi yàqu mu defar ko war wenn fasamu ràjj ànd as ngóoram nee na ñuy dem di xeex ay noon yoo xam ni daanaka gisuñu leen loolu tubaab di wax ridicule ngay mujje mooy ñàkk solo toroxal sa bopp ñun jullit ñi am nañu ay noon dëgg la waaye noon yi nga xam ne gisoo leen tegoo leen bët daanaka mënoo jot ci ñoom te duñu jàkkaarloo ak yow li ñuy def ña ca ñoom ña nga ca seenub liggéey ña nga ca seenu feem ña nga ca seeni pexe yaakaar naa ne ñooñu xeexe leen ci yooyu feem du sotti te nag lima doon wax naan bay ci say om ñun dañoo yor fii ay gaarit yoo xam ni li feek saafarawuñu ko mel na na kon ñun jàkkaarloog ñële sax dootul amati sens ndax nag noon boo xam ni bii mi ngi ci sa biir ngay teg sa bët ci moom moo jar xeex te Sénégal noon bi gën a garaaw ci doomu aadama moo ne ci suñu biir ñu teg ko suñu bët te jéemuñ guñ ci lu bari muy jaahil jahl cànkute réer sang um umpale sa diine umpale sa àddina umpale lépp nga xam ni comportement nit ñi bés boo xëyee suba loolu nga ci gis nga gis mu kàllaf moo xam ni mii àgg ci ay at foo xam ni fii daanaka boo ko tegaloon àlluwa ci poojam dootul jàng ndax ku ne xam ne ne jàngal mag moom moo bind ci ndoxayam mënulaa jàngal fatiha bu mat fatiha loolu xeex la woon te doy na sëkkëb xeex nag war xam faratay julleem xam faratay njàppam xam nag lan mooy njekk ak yiw jikko yi nga xam ni jikkoy sunna la yonent bi jàngale ko waaye laata ñu koy jàng dañ koo fekk ñun ci suñuy baaxi maam muy ngor jom fula fayda loolu doy na xeex bokkaale bi ci réew mi nga xam ni ku ubbi gémmiñam bokkaale lay wax ku jëf bokkale lay wax seen geste seeni comportement lépp bokkaale la doy na xeex jikko yu bees yi nga xam ne ñoo dugg ci suñu doom yi façon yu bees yi nekk ci ñoom ñu war koo jubbanti delloo siwaat leen kenn ku ci nekk ci sa biir këru bopp nga tàmbali di saafara loo mën di wax ak say doom di was lu àq di leen teg ci yoon mu jaral lal lu nekk waaye bàyyi leen ñu mel na ay xar yu dagg bàyyi leen ñuy cambal cambali nekk ci seen bopp loolu yaakaar naa ne bu lab noonu jugee ci biti dafay yomb lool nag mu faagaagal la nga nekk di xeex boobu noon di tëll tëll di wax te yow li nga yor doy la sëkk caq ak jara moom noonu boobu su fekkoon ne danga ngay xeex ak moom dangay fexe ba lu mu gas nga suul ko lu mu yàq nga defar ko segam nee nga ay jikko lay yàq lu jàngale ay jikko doy na sëkk ci alquran doy sëkk ci xadis suñu baaxi maam yi ci cosaan boo ca delloo la ca nekk ci jikko xajul ci noon bu jàkkaarloog yow bëgg a yàq say jikko waaye nga nekk ci réew moo xam ni mi waroon ngaa mën a xeex xeexub diine jàngale yeete yare nga bàyyi fa yooyu yépp di jàkkaarloo koo xam ni kii yow gisoo ko xamoo dëgg-dëgg feemam xamuloo taxawaayam yaakaar naa ne loolu it nag day xaw a reelu xoolal ma li nekk ci suñu biir ci réew mi ci noono ci safaano ci xàjjalikoo ci joŋante ci jaayante fulla ak fayda xool ko koofi fi bokkalul aw pas-pas koo bokkalul aw yoon sa noon la bu la ko waxee ak bu la ko waxul looloo fi nekk ku ko weddi demal ci réseaux sociaux loo wax ku ca gis boppam rek tàmbali la saaga réewum buuxante réewum rawante réewum jongante réewum xool leen ko ci mënuñoo daje ci dara munuñoo bokk juboo ci lenn loolu doy na problème beneen problème bu doy problème manque de solidarité kenn du fi yërëmee kenn du fi dimbalee diine ji li nga xam ne moom mooy taxawal as ab diine defuñu ko mooy dimbalante ci biir diine zakat sax bu génnee doo xam fu muy dugg doo xam fu muy dugg taxawu bi nga xam ne moom nga war a taxawu nit ki ci feebar ci bor ci njàqare loolu lépp far nañ ko léegi da ngay dégg ay nit ñuy dajale ay milliards doo ci gis lenn loo xam ne dafa jëm ci diine wala mu jëm ci bokk loolu nekk ci réew mi nit ñi théâtre la ñu gën a mën théâtre ma jox la ci benn misaal bu gën a simple rek ci théâtre diine da ngay ñëw ci bërëb ñu ne xew xew diine fa am communiqué ba lañ cay wax bu 9h daañu jàng alxuraan bu tedd bi alxuraan jooju ñaar fukki nit fanweeri nit ñooy toog di ko wàccee ci njàngin moo xam ne mii la yàlla xam doy na benn paaleen mooy yor mbaxaneem wala ab ñangeen acc leen ci kaamil bi acc leen ci kaamil bi boroom xew ma bu joxe fukki junni wala ñaar fukki junni bari na suñu boolee lépp du mat fanweeri junni buñ ko seddalee jàngalekat yépp kenn ku ci ne boo amee junni dawal ba fattu ñu dem ba guddi ñu tàmbalee tëgg ak fecc ak fettasu ba bët set ka nga xam ni kii mooy jàng lu mu gàtt-gàtt moom enveloppe bu cinq cent mille lay dawloo moom ak fukki nit yi koy àndal awulu aw bokkut ak sarax bañ koy sarax maye ba ñuy maye léeg nga seen ko gis ko xatraayu may ko oto sax nag wala may ko leneen lu ni mel kon mel na ne alxuraan moom amul valeur te loolu benn exemple laa leen ci jox bu bokkut ak téeméeri exemple yi nga xam ne nit mën na koo génnee ci wax jooju mbokk yi lii nga xam ni mooy xew ci réew mi doy nañu sëkk ak barke ci wax doy nañu sëkk ak barke ci wax bu ñu tàmbalee ci réer gi fi ne jongante bi fi ne ñàkk dimbalante bi fi ne naxante bi fi nekk warante bi fi nekk di gëmloo nit ñi lu bokkul ak li pas jullit war a doon di sànq nit ñi jikko yu sànku yi incivisme maanaam amuloo benn war ci li nga bokk ak nit ñi loolu lépp doy na ay noon yu waroon a wàllis ñuy dem di wax ay noon yoo xam ne yow gisoo leen xamoo leen xamoo nu ñuy doxale nañu fexe ba bayoon suñu tool bi ba mu set ba nga xam ni tey lu doon yàq buy dikk itam danañu xam fu muy jaar xam nga dëkk boo xam ne bii boo nee ñoxor njaay ñu ne la yow noonu diw nga diw ngay sànni xeer soo waxee sax ñu jël say vidéo yónnee ko nan ko xoolal kii lim la wax mu mel na yow danga doon ab noonam man de duma tàyyi ci di ko répété benn jamono ku ma jàppe sa noon dugg nga coono ndax awma jotub di noonoo kenn lii nga xam ne nag moom la ñu bokk muy diine jii moom ku ci ŋaang rek di ma dégg yàlla fekk la nga wax daal méngoog li ma jàpp ne loola mooy yoon wax lu ko mooy danaa ca wax sama xalaat fii nag li ñuy baaxoo mooy ngay wax ñu naan la niveau bii nga koy déggeeg fee nga koy déggeeg sàmbata goro ñàlle yooyu du dox du dem il faut ñu teg yëf yi ci yoonu diine ji nga xam ne moom lañu bokk di ci wax man léeg-léeg ñu ne ma yàgg diw yéen a bokk ngeen di def ma ne déedéet bokkuñu ko ndax dañuy bokk loola ba pare bokk nuñ koy defee man kooku laay gëm ne ñoo bokk la ñuy def loolu laay gëm ne bokk la ñuy def ndax su fekkee ne doxalin yu bokkuñu ko ba tey bokkuñu lu ñuy def su fekkee ne leneen ngay xeex nee nga di ko ko xeexe neneen loola tam bokkuñu lu ñuy def man daal li ma xam mooy lislaam ji laa bokk ak ñi ko bëgg a bokk ak man réew mi laa bokk ak ñëpp ñi ko bëgg a bokk ak man valeur yi ñu doon ci suñuy maam muy ay jikkook ay ay ngor jom ak kersa loolu laa bokk ak ku ko bëgg a bokk ak man lu dul loolu nag awma ca defar awma ca yàq na ko góor gu baax ga doon waxee asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu